القادم بالخدر سفى بغائي كوني سفى بغائي كوني سفى بغائي كوني وخبيئي ومبتغوني بمن أداء مصوني بعن المكبر ورد السخاء والباخي عن المقلب لخير ساعات والجيوب زين الحني تكبري هدم رفيقنا درع النخمة ربنا ومن ساد خربنا وخرب ردا وكرمي اللب من سبوه وليخاد سكره ولسوء مكره ساق وسان خرمي للآخي حمدي بالشكر وإنه حادث الشكر وسألني عن النكير وجالبات النخمي إلى شوايا درعا كل أصل فاندرعا وابني من خرعا غير سواء الخميل li waral bis bi mooy bisub sant Sëriñ Tuubaa la muy bis bi ñu yàgg def def nañ ko fukki at ah, bis bi nag li waral ñu dajee murid yi muy bis bu am solo bis boo xam ne li tax ñu dajee fi mooy ñu sant Sëriñ Tuubaa ci jëf jëf li ñu jëfal ak li ñu defal ak teraanga ji defal moo tax bis bi saa bu ñëwee ñu di ko fàttaliku. waaw mi ngi tàmbali moom na naa métti lool ndax euh, ci dëkk bi jóge Tuuba bi ñu dalal ma am fi at moo woote bis bi xawoon naa métti lool nag ndax lu baax du yomb mukk waaye da ngay xam ki ngay liggéeyal kan la mm-hmm. muy Serigne Touba Serigne Touba képp kuy liggéeyal doo tiit doo dangay dem rek mu jàppale la waaye bu ñu ragaloon wala ñu del si ginnaaw ba tey ñibbi nañ Tuubaa bu ñu jógee woon waaye ñëw laxasaayu jël xam ne ñu sëñ Tuubaa ñu wane ko loolu mooy mooy liggéey bi tey murid yëpp tey murid yëpp ñëw nañ sëriñ bi yónnee na délégation bu mag wax dëgg yàlla واصرف عذاب النار عن جملة ما بيتعالف من أبناء زمن وجملة الإخوان من أقارب في دين أو في ديني والأجانب فليكن مسلم ودع يا سمن تولني ولا تكني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وصلي مصطفى ndekete dafa ñëw fii jël si suufu maamam wante ba mu ñëw ci ndigal la ñëw indaale alxuraan indaale xasaayidu Sëriñ Tuuba waaye tey day am na fi daayira am na fi suuf dëkkuwaay am na fi kóllëre waaye itam am na fi ay xarit yoo xam ne jamono buñ ko wooyee mu ñëw waaye jamono bu wootee ñu loolu day war a ne ak yokk la yoonu Sëriñ Tuubaa nag yokkute la kon mbëtti la ci arrondissement waxtu ba borom dana toog wax léegi bi doon boo xam ne bii bu yëwal la bu di tàggat li nga xam ne ci Sénégal tey ci actualité ñoo gën a jaaxal mbokk yi ñoo gën a jaaxal waajur yi muy ndaw yi muy wane rek jataay bi ñu toll parce que damay faral di wax ne jataay yu ni dafay baax ñun ñi nga xamante amaana dañu féete ci wàllu góor gi ñu teew fi sans compte ak yéen waaye dafay nekk occasion yi amaana yenn saa yi ñu jàllale ay message parce que damay faral di wax rek ne ñun ñoo bokk ñi nga xamante nii ku dee ñuy ilif ngeen baal ma ci ni ma koy waxee mais mënuñu yëpp ilif leneen lu dul ñuy doomu aadama yéen it taalibe yooyu ngeen di yëlif ay doomu aadama dafay baax ñuy faral di yëngu ñuy déggoo parce que ñoo bokk ñii loolu nag damay seede bi sax kanam mbokk yi nga xam ne wax nañu ñu ngi fi ne sëñ Moustapha Mbacke mii sonaluñu ci lenn loolu lu ma a seede li tax ma koy tudd sànq le maire dafa am lu mu wax amaana ma jàpp ne daf ko xaw a junj na mu bëgg see xuus tuuti waaye te du ma si sori mooy bu ñu demee ci yeneen i dëkk ci Sénégal bi dinañu faral di dégg ay taalibe yoo xamante ne seen i melokaan dina xaw a tiital dina xaw a jaaxal nit ñi ba jàpp naa ne fu mu toll ci fitna lay nekk parce que saa su ne day ñaan intervention loolu mën nañu wax fii ci kanamu nit ñi te dalu loolu dañ koy sant yàlla bu baax loolu bu dañuy jàpp rek ne am na foo ko jëlee fi nga jëlee lii mag bu baax moom daal wax jarul ñuy sori weesuwul sa tuuma loolee nga am foofu.

ليس يرى مكسبك يا ويدا ليس يرى مكسبك يا من وجهك الكريم ذا الكتاب كتبت هب لي قسمة من الكتاب muy murit muy tijaan muy xaadir muy ñaseen ñëpp jàpp nañ ci kon damay sant bu baax ci teewaay biñ teew ndax mënoon naa woote kenn du teew ak bu ma wootee ñëpp teew nañ Euh, ndax jamono dafa jamono joo xam ne waaye yëg rek moo am solo doomu adama nit boo boo amoon nit amoo dara kon suñu borom dogal na mu boole ma ak doomu adama yi rawatina Serif Diaw moomu lu tax ma jël bis bi def ko parrain de sama xarit di sama féete sama soppi doon ko baax nag doon ko ma jàpp bi ma xalaatee mu ne Serif Diaw kat jël bis bi def ko parrain ginnaaw yalla nag bu xamé bi amé ci Omar mi ne ko suñu borom jaralé Omar la lay sant bu baax dila gëreem dila ñaanal bu defal ak wër ndax ku baax ku baax la té ku bëgg lu baax la wa Dakar ak yépp wax di yalla sama sama sama xarit lañ Moustapha rek oyofam moo tax sama directeur yabal ma jox ma auto jox ma jox ma emploi ni ma demal nga téwé bis bi sa oyof moo tax ñu ñëw fii ñun. Sébastien Diouf nee na bu ma demee bu ma ñëwee fii naa la sant bu baax gërëm la te wax nga ni li ma la jox xeeb nga ko yàlla la yàlla gërëm sant la. خديما لمن عند القلة سلو نسخت بنا المينح بالحق ناديا لفردي على خلقي نهض ديدنه نويت دام نويت دام waaw xanaa di sant bu taalib yëpp di sant waa dëkk bi nag di sant li war dëkk bi yëpp murid yëpp sant nañ leen gërëm nañ leen ndax ku nekk sa yéene agsi na sa taxawaay rafet na ndax man dama kontaan ba lépp loo xam bëgg ci bis bi borom def kon nañ nañ. محتسب نسيب لمن بالكفر وسد يهون نسيء بلا قصر حليم مهلم سقيل بلا من كلام يلين نديب عجيب ناسب وهو الناسب هو الامر الناحي مثل خير منه نقيب رقيب مسجيب مستحسب نسيء من اسر وهو ناعم ومحسن نسيب غصيب سوقت آه، مقدم